tey su fekkoon woon le fait que primeuru contenu bi dañu ko war a réserver pour bu ñuy dem séance ba nga xamante ni ci la conseil bi war a examiner mbir mi mais damay jël damay jël plan bi ma ngi sama mi ngi fi ma jël ko teg ko di leen liiral nag programme bu nekk yan ñoo fa nekk yoo xamante ni lu bëri lu ñu exprimer fi mi ci biir puisque nañu ko liggéeyee c'est d'abord benn diagnostic boo xam ne nit ñi dañ ko defandoo mais diagnostic bi balaa ñu koy defee ni ñu ko defee dañu ko commencé ci audience publique yi di déglu nit ñi ñuy wax pendant cinq éditions Nous teg ci ensuite benn atelier vraiment de planification participative pourquoi parce que nous avons l'ambition comme on l'a dit de faire de Dakar la balle de caisse et n'est pas une mince affaire du lu ndaw naka la ñu mën li fi nit ñi il faut ñu def il faut ñu def il faut ñu def li ci domaine bi ci assainissement ba après ñu wax dañuy li nit ñi ne ok Thiès ku ko potentiellement yéen ñëpp toog nañu le chef des services fiscaux moo ne am ci rien que ci domaine euh, foncier bâti il y a un potentiel minimal de 5 milliards moom et devant tout le monde sans souligner yenen ñun ñëpp xam nañu ne bi ñu dévolution bi dañ né garu gare euh commune ouest moo ñu ni marché central commune nord moo kon moom ak légui ville ville wu fa ñaari dëkk tay ay infrastructure am lañu wax mo indi ciow mais xam nga ñun wax nañ ci ne d'accord uñu mais nekkuñu fi di bloqué

communication boo xam ne dafay jëm ci ministère de la gouvernance locale y compris wax nañ ko bu leer nañ que dañoo war a revoir li nekk ci arrêté portant dévolution bi parce que baax mais wax nañu ne gare routière bi nga xam ne waa Thiès yëpp a ko bokk suñu ko jëlee jox ko commune ouest aussi ñoom dañu wax ne 40 recettes yi la commune bi di moom mais lu fa yàqu moo koy defal 30 recettes yi bii la ko moom 15 pour chaque commune marché central aussi pareil. 40% des recettes pour la commune nord, 30% des recettes pour la ville, 15% pour les deux autres communes. alors xam nga l'eau, su fekkee ne sóor ko kon di mais ça veut dire qu'au plan des recettes yi ñu avons, a séntu ñu a dina am lu baisse. Euh, appareil distribution carburant Nous ci lecture bi ñu nous ñu euh, dañ ko jox commune jox ko ville comme mooy li ma doon expliqué léegi mais soo demee ci chapitre 5 boobu article 185 mais dañ lay koy dañ la koy jox ville parce que ville moo ko yoree quand dans une ville ñëpp xam nañu ne am na entreprise yu mag yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne bu ñuy fay ñoom fayuñu biir Thiès centre des grandes entreprises la ñuy fay te centre des grandes entreprises duñ ñu ko duñ ñu ristourné dara te ñooñu fi liggéey bu ñuy polluer fii la ñuy polluer bu ñuy créer embouteillage fii lañ koy defee si y a des risques d'accident de travail fii lay amee donc su fekkee ni loolu am na mais dafa jaadu ñoom la ñu war a fay même bu fekkee ni dañ koy jaarale centre des grandes entreprises mu am lu ñu ristourné donc soo ko xoolee euh, fondamentalement di nga gis ne potentiel boobu ville bi am ñun ñëpp nous devons mettre en avant l'ambition que les Thiessois ont de faire de Thiès dëkk boo xamante ni dina méngoo ak opportunité yi ñëw ñëpp xam ne ni aéroport mu ngi ñëw ñëpp xam ne ni bretelle buy jóge foofu ñëw ci Thiès mu ngi fi ñëpp xam nañu ne mi ngi am autoroute ci ci Ila Touba ñëpp xam day am autoroute Thiès Thiénaba Tivaouane mais à partir de ce moment là mais on est on est tenu de préparer lool parce que y am des flux qui vont venir et qui vont submerger Thiès si on ne se prépare pas si on ne s'organise pas tel que préconisé par le plan de développement de la ville li ñu nar ñu anarchie fi am Or, l'on L'Union c'est anticiper. Il faut toujours envisager les choses du point de vue de l'avenir. Alors, comme l'on nous, nous organisons, nous voulons nga raisonner en tant que waa vous bu bëgg Thiès mais nous raisonner aussi en tant que Sénégal. vous savez, aujourd'hui le développement du Sénégal ci daf ça va nécessairement passer par Thiès mooy carrefour du mooy moi, je suis buntu bi alors comme nous la dit quand je dis qu'il faut aller vers la dédacalisation du Sénégal mais ce n'est pas contre Dakar c'est faire respirer Dakar Dakar doit respirer presque. qu'il tey jii lu ëpp si activités yi yu am solo yi ci Sénégal dans une ville voire même un quartier tout le monde sait que l'autre monde a alors le premier pôle vrai pôle bu war récupérer leur Thiès alors loolu nous ñun ñii suñu jàppalewul suñu bopp ci comprendre que lii ñëw dañ koy waajal euh, dama wax xam la prochaine ville de Thiès du trois communes la prochaine ville de Thiès c'est le département de Thiès parce que euh, tey Dakar ville de Dakar département Dakar ville de Guédiawaye département il y a que Thiès ak Rufisque ñoom la ñu C'était pour des raisons politiques. C'est la vérité aussi. Mais aujourd'hui, euh, il nous faut avoir une vision de développement, dépasser préoccupations politiques, Puisque nous, nous sommes Je répète souvent que, sauf si nous sommes, ndax jëlewuñ comme nous avons besoin de set nous pour cela, nous devons avoir l'audace de poser les actes qu'il faut pour préparer l'avenir. L'avenir, c'est la ville de Thiès. Vous savez, métropole d'équilibre, c'est le département de Thiès. on aura Thiès, on aura euh, on aura euh, on aura Ngundian, on aura Tubatu, on aura Khombol, on aura Liensira, on aura Tasset, Noto, Kerm ba ñu ronqi morolan ndax nag ñun la gën a jege nag te lu mën a nekk alors bu boobaa nous ñu maanaam ñu maanaam vision wu développement bi day mën a tegu nga xam ne quand on va se mettre autour d'une table pour discuter on va pas discuter de politique partisane on va pas discuter de politique politicienne danañ fi am ay Dangote am fi ay yeneen structure yu mag yoo xamante ni en matière de financement dina ko mën mais ensuite bu boobaa am na xam ñu nekkee dañ bu bëggee wax euh, bu ko daan wax bu mais parce que alors loolu loolu loolu gis-gis puisque dañoo yore beneen liggéey alors qu'il y a des problèmes qui se posent en permanence so jëlee juste le domaine du sport tay on a ah, le président Ismaïla Diallo Moi, qui s'est toujours occupé de ça ñepp xam son amour pour le sport pour les sports même qui s'est toujours impliqué ñi kooku kenn discuté wul fasté fam wala wala pas-pasam lolu leer na mais est-ce que mom kese man na porté lo xam nga moom kese mënul porté lo aujourd'hui créer une division des sports, mais on a commencé d'abord par un bureau des sports. ñu dem ba ci nous ñu gis ne li nga xam ne moom la sportif yi soxla ci domaine yëpp benn nit mënu ko gérer ñaar ko gérer et qu'il faut une division des sports division des sports mais waa Thiès gis ci seen bopp puisque ñun loolu moo ñu wat tey que bu fekkee ne waa là. la wala Africa Promo à wala Rai wala benen bu manti do ñu am soxla suñu ñëwee tay bind man nañu ko imputer un élu comme par exemple le président Ismaïla Diallo bu fekkee né c'est une activité de représentation mais s'il y a un dossier à gérer à suivre mais nga am une euh, une disposition ou un dispositif bu mën taxaw ba di top loolu mais mo ko xam en permanence lolo waral dama jël bobu mais liñu bëgg ñun ci Thiès bëgg ko en matière de développement bëgg ko ci toppatoo yi nit ñi di wax parce que suivi ñepp ko fi tuddu ñepp dañu wax ne dañuy am xalaat yu baax te suivi du am mais parce que suivi il faut mu am ñu tok di ko def looloo waral gis nga ces six directions là euh na ngeen ma ci wax bu ci mën a manqué benn bi c'est la direction des services techniques de la ville ben, c'est la direction des finances et de la comptabilité Ben, c'est la direction des affaires sociales de la culture et des sports Ben c'est la direction de la coopération de la planification et du développement en même temps suivi nous ñoo c'est la direction des affaires générales et de l'équipement Nous avons fait comptabilité matière Faut ngay dem ressources humaines foofu ngay dem fekk fa intendance foofu ngay dem fekk fa affaire générale nga ñëw DSUC mooy direction de la surveillance urbaine et de la citoyenneté ban la ñuy dindi ban la ñuy dindi benn lañ ci mënut a dindi benn lañ ci war c'est-à-dire que li war mooy qu'on se mobilise pour ne lu jëm ci recouvrement nañ ko gën a liggéey pour def ko Pastef bi des na foofu mais aussi il faut que les gens disent aux services fiscaux ak yooyu que taxawaay bi des na parce que nous avons non, non direction générale des impôts et domaines wara mëna mën ci pour que lui, li li par exemple le maire Ali Tounkara bëgg té ma bëgg ko man moy que ñu renforcer les investissements puisque ben dëkk du dox te renforcer les ñu investissement c'est pas possible ce n'est pas possible alors mais ñepp xam nañ aussi qu'il y a une réalité la réalité moy lan moy vocation sociale maire bo bëggee du jour au lendemain nga dindi ko du baax man maay toog fii ah. man la ñuy fekk fii di ma poser des problèmes et ce sont les problèmes de la vie et ay day am ñoo xam ne poser le un problème de santé et des problèmes de santé nous avons am tous les jours tey jii li tax ñu am am le besoin de créer une structure buy toppatoo loolu parce que y a tellement de demandes lu jëm ci wàllu social waxuma la éducation waxuma la santé waxuma la leen mais li am ci demande boobu rek mënu ma la wax benn nit da ko mën a gérer benn nit mënu ko gérer ce n'est pas possible aujourd'hui ci wàllu culture ñëpp xam nañ cees ni mu mel Sénégal ni tey lu ñuy wiiri wiiri bu jotee ñëpp ñëpp bàyyi ndax ndaari sax dañ koy bàyyi <laughs> ndax wiiri wiiri mais léegi moo leen gën a ndaar il faut ci le culture bi c'est-à-dire que bo de dee ci plan développement de la ville li nga xamné ne sa préoccupation ya nga amone ba ko mi ci bir parce que effectivement Thiès dafa war a au-delà du carrefour géographique bu mu don un carrefour culturel aussi ñëpp xam aussi carrefour religieux mais c'est la capitale de la culture te xam la ville ci compétence yi mu am daf ci promotion de la culture nationale et locale mais daf ci bokk également promotion des langues nationales mais promotion aussi de lépp lu jëm ci tradition orale Donc de ce point de vue nous avons à ce niveau là aussi des choses à faire direction des affaires sociales de la culture et des sports ci culture mais nous, ñooy toppatoo ñun pour patrimoine historique d'ailleurs suñu musée bi suñu musée bi euh, li commune ouest def ci ginnaaw musée bi war parce que musée patrimoine historique là. musée kenn waru ko tiof ken waru ko alors donc bo xolé ba xol li ma bëgg moy qu'on fasse qu'on soit une équipe une équipe mais l'équipe de Thiès l'équipe de Thiès pour euh, jóg wuti talu lu nek l'équipe de Thiès pour wax ak wa Thiès man amul jang yu may dem souvent te ci wax affaire fay fay impôt kilifa diine bu ma seeti dinaa la wax ci nga wax nit ñu fay impôt li ci des na mooy euh, nit ñu dalal seen xel ci ne bu xéewal ñëwee ñaari façon nit moo am ki yore goppam di joob ak ki yore goppam di joob ñaar yooyu moo am waaw kii di joob la joob kii bëgg a joob la joob

woon moo doon defar camion yi à la place bi man ñaar yëpp mën na c'est-à-dire mënuñu opposer camion yi ak matériel bi ndax mën nañu am matériel bi am camion yi aujourd'hui am nañ camion bi am nañ camion yi am nañ matériel bi maintenant li manqué xam nañ def nañ ko ci plan bi mooy euh, le maire Lamine wax na ci am na ñeneen ñu ci wax mooy organiser vraiment maanaam lépp lu jëm ci ordure yi ci processus bi yëpp fa muy tàmbalee ba fa mu jëm effectivement ñun tey ji am nañu ay bac yu mucc ay mu nekk problème mu tracteur benn bi bokkoon na ci ñu doon def ferraille mais am na ñaar yuy ñëw incha allah yoo xam ne waxoon naa ne ko fi ne canadiens yi digoon nañu ko bind nañ ma wax nañ ma serek li dess moy walu transport bi nag suñu ci ñun suñu ndodd la tek donc lolu ma ngi joko ak ñom pour lolu nu muy ñëwee parce que su tracteur yoy ñëwee ñu mën a jariñoo bag yooyu alors euh, leneen lu ñu mën réparer da mu am fi ma ngi aussi di waxtaan ak ay nit mais comme yoy lu leerul rek du ci sori ma mais ma ngi waxtaan ak ay nit am na ay doomu ciess yu yàlla may ay moyens yoo xam ne wax naa ñoom pour ñu dimbali ñu ci lenn parce que xaw ma kañ la waa programme national de gestion des déchets du peuple. donc comme xawma kañ lay dem li ma war mooy mais en attendant on doit se serrer les coudes parce que bu Thiès salté même bu que c'est la ville qui a la compétence du waa Thiès la vous du la ville la salte ñun ñëpp la salte ñun nous ñu war mooy en attendant que nous nous jox les moyens yi nous permettent de nous occuper véritablement des ordures de Thiès mooy qu'on ñu jàppante au-delà même des compétences des uns et des autres loolu mon, moom lay un appel pour que ku Baye pour que cette pièce ci boppam Voilà, un appel au président de la République euh, et au ministre de la gouvernance locale particulièrement pour que lu gestion des déchets li ñu doon jël programme national de gestion des déchets déchets ñu parce que vous ñu ko Nous ñun maintenant. mais

maanaam jël la ba pare amul un plus nous avons pris ay doomu délégué de quartier mais loolu ñun commune yëpp dañu de war gërëm xam ngir lan ngir délégué de quartier ñun yorewuñ leen commune ñoo leen yore te liñ leen di fay bariwul te ñoom li ñu yore dafa rëy et on est dans un contexte sous-régional et mondial ci wàllu insécurité bu doy waar tu peux pas jël ku mel noonu muy am ay entre trente mille et cinquante mille loolu tey bu fekkee ne kenn ku ci nekk jël nañu kala jàppale ci sa njaboot ñu recruter ko au niveau de la ville moy am 65000 mais niveau de vie de kër ga aussi changé mais tay ñooñu tay ñun buñu soxla ci walu recensement walu man ci doon bëgg ko xam te koñ ba mais kooku xam na ko am de alors lool ñooñu tay ji ñom ñoo nekk les volontaires di liggéey au niveau de la division des actions citoyennes